aawuzu aawuzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa Ibrahim yaak Cheikh Mouhamadou Mourtada ak mbooleem mbokk yi ngeen àndal bàyyi koo yemal yëpp sëriñ baa ngi yëkkatiwaat kàddu yi cant ak yooyu ngërëm ak yooyu nuyoo di ko teg seen loxo di leen ko yóbbante ci mbooleem mag ña ngeen bàyyi ci dëkk ba ak waa tund di di rafet la bu baax seenu doxin ak seenu ànd ak moom di leen jotalit ay cant ci biir ak ci bitti nag ndax li gën a jafe mooy woote ñu wuy si la waaye man nga woote ñu wuy si la it bëggoon ñu wuy si la wuy wuñ la waaye sëriñ Touba bi muy woote la tax mu sant yàlla da koo leeral ndax ba muy woote ñam bëggoon ñu wuy si ko mooy ña yàlla gërëm moo tax mu ne askuruhu waxaadalil abdaala kama kafaanil harba wal jidaala sant naa yàlla ci bi ma wootee abdaal yëpp wuy si ma kon cant gi mi ngi toog ci fa nga wootee ña nga bëggoon ñu wuy si la ñu wuy si la te Cheikh Abdou Lahad nee na ba muy woote sëñ Bay Jaxate waxoon na ko sëñ Touba ko war nga ñoo sant sëñ Touba na ko lu ma leen di sant mu ne ko sa baax gi bu dutoon ak sun bon gi du feeñ <laughs> ab lamp boo ko tëlee bëccëg du leer da koy tal ci ak lëndëm rek loolu moo taxoon sëriñ Cheikh ñëw yamal ci jamonoy soxna may mu na defu ko démb defu ko barki démb. dëgg la ba mu leen fay fekk booba mënagul dara. Mhm. am néegum ñax rek a fa nekkoon. booba yéen ay tuut tànk ngeen genn wàll gi sax moo leen far tudd. waaye nag mu jàpp ne daa war a liggéeyal Serigne Touba te liggéeyal yàlla ci jaami yàlla yi lañ koy def. julleeg war topp yàlla la ku ko defut de yéefar waaye liggéeyal yàlla moom ci jaamu yàlla yi lañ koy def. Mhm. moo xam ne jaamu yàlla it mu ne su cee liggéey lenn lu weesu wuutu yàlla ci ñoom ci li nga xam ne doomu aadama mënal na ko boppam. Cheikh Rafal daana wax na ah doom lu ngeen man bu leen ko ñaan yàlla. Mhm. bu ngeen ko sabab loo yàlla defal leen ko. nit day ñaan yàlla nit ñi. defuma la ma war. Mhm. ndax li jiitu ci moom Serigne sila baay Fall wax na ko mooy juddu bu rafet. bu yàlla gërëm suñ borom a koy tànnal doomu aadama kenn wutut sa ndey kenn wutut sa baay. Hmm. kenn ku nekk yàllaa lay wutal ndey wutal la baay. yàlla mi tànnal nit nag moo ko tànnal ab juddoom. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day tax suñu borom man koo tagg ci wa innaka la ala xuluqin azimin mooy da koo tànnal ay maam. bu yonent bi doon tànn ay maam mën naa am maam mu yàlla gërëmut wala maam mu am masa tooñ yàlla. waaye yàlla mi koy tonnal mooy toftale ay maamam di ko tànn muy jag muy tànn muy jag ba agsi ci moom xiyaarun min xiyaarin moom mii yàlla ko tànnal ay maam te damay wax ne kër gi ku jàpp ne kër sëriñ Cheikh la Cheikh Abdou mii wala kër Soxna Astou la wala kër Soxna Bali la wala kër Soxna May la xamoo kër gi kër gi kër Sëñ la mooy genn kër ci yoonu murid goo xam ne Carrefour la boo fi taxawee kër gu la neex dugg amoo frontière kër soxna may gii mm. boo fi taxawee buntu kër sëñ Touba bu la neex waaxu dugg amul frontière njabootu sëñ Touba gépp ko bokk ki fi nekkoon di soxna may muna moo mujj ci sëñ Touba ci atum 1925 sëñ Touba liggéeyam bépp ci mubaarakul ibtidaa yi la ko tàmbalee waaye fu mu ko jeexale ci may munal intihaa yi la ko jeexale mubaarakul ibtidaa yi mën nga koo tudde Cheikh Mahamadul Moustapha waaye maymunal intihaa yi nag mooy borom kër gi ki tàmbali ci sëñ mooy maamam ki sëñ Touba jeexale ci mooy mooy maamam loolu ku doon tànn amoo xelum tànn lu mel noonu sëñ Mourou Moussa di sa maam soxna Maymuna di sa maam ku doon tànn amoo xelum mën a tànn loolu wala bu dee lu ñuy tànn bala ngaa am kattanu àgg fa ñu la ëpp doole fëpp jëlale fa kee jëkkee mujj. kee mujj. mu seq ko ak maam Thierno Ibrahim borom Darou Mouhty. di la sëñ Touba ko waxal boppam Thierno mooy sama përëgum di joor. fi fi ñu war a jaarale doomi soxna lañ ko jaarale jàng alxuraan ba mokkal ko. rumbux jóge fi war a jàngi soxna may taxawal ko boppam xam ne réew mii am na ci responsabilité boo xam ne li muy doon doon ko ne ci kanam mi ngi koy xaar. te yaar day tuxu sëriñ dégg naa lu bari ngeen di wax waaye gis nga àdduna ci ñetti ñetti tànk lañ ko tegoon bu njëkk àdduna juddu lañ daan wax ku bokkul ci yax bu rëy bokkoo booba gelawaar yi rek a doon jar àdduna dooju daa dem ba jeex àdduna du ci topp mooy àddunay xaalis kër goo mën a bokk ak noo mën a mel rek amal xaalis boo amee xaalis bokk nga àdduna dooju day jeex. ca daa toll ci di jeex jën adduna ci des mooy addunay xam-xam ku amul xam-xam bokkatoo ab juddoog xaalis ak ya ñuy wut yëpp borom xam-xam moo ko mën a saytu soxna may xam ne kii daa war a xam dara mu dem jàngiloo ko mu jàngi ba am ay lijaasa yu mag del siwaat fab lijaasa yëpp jëndewaat ko ngërëmul sëñ Tuubaa nekkaat ci kon ron way juróom di ko tarbiyewu Cheikh Abdoul Ahad miñ ko tudde kere bi yàlla dogalee Cheikh Abdoul Ahad ñëw Serigne Cheikh toog soxna May toog ñu ne ko tur wii de yaa ko moom lam ca wax kenn ku ko ñemee teg ci saal amut waaye moom xamal na ko boppam. xam na ne am na garantie. xam nga ki mat a yërëm. Hmm. mooy kuy toog di tëkku Cheikh Abdou. kooku amat a yërëm waaye moom xam na boppam. ndokkit nag ba nga xamee ne yaar nangu na ko yaar. Hmm. Cheikh Abdou nangu na nga bëgg ko nee na man soo ma bëggee damay xool li nga ma bëggee. ma jéem koo dolli ba gën maa bëgg nangu na yit ku ko contre nee na soo ma contré damay wëri lang ma contré su dee lu ma def ma jéem koo bàyyi <laughs> waaye contre ma du tax ma romb la nuyuwuma la du tax ma war laa jëriñ jëriñuma la saa yoo ko ne diw da laa bañ mu ne am na ci droit ndax defu ma lu tax mu bañ ma loolu lu jafe la ci doomu aadama ngeen ñëw mu ñëw yaman ngeen dalal ko ndax yaman lam fa bëgg bëgg a liggéey lam fa bëgg bëgg a def dara su ko mag ñi ak yurutoon téye ko seen bopp Cheikh Abdou fa mën a def lam fa bëgg def waaye dañ koo téye mu am yéene la daloon maamam dal ko mooy seriñ bi nee na bi mu nee yundu jamono ñëpp dañoo daw songu ma ma mel ne koo xam ne daa jaar fi barab xetuk laj ko lañ xeeñ ko ñi bëgg laj ko lañ ñëpp daw ñëw ci moom ne ko may ma laj ko lañ te booba waxuma la am laj ko lañ waaye xaw ma fa sax fu laj ko lañ am nee na lay sama ngor duutu wax aw ma laj damay dem wuti laj ko lañ Cheikh Anta ba mu ñëwee yaman xam ne nii la ko mag ñi téye mu ne naa dem wuti doole. bi yàlla dogalee mu am dara ci ndoole xam ngeen ne ndoole si mu njëkk am yaman la ko andi ci moom laa gis yàlla boole la ay ay taalibe yu man nga ne du leen laaj lu ma jënd ceeb du ma leen laaj lu ma jënde oto du leen laaj lu may def dépense loolu mën naa ko amal sama bopp seen alal ji daal saa yu ma gisee liggéey bi yàlla mën na leen def leen ko ci. te la ilaha ma liggéey fee. boo ko laajoon dana la Cheikh du day mosuma jënd loo oto baab gaasuwaal waaye fu mu gis liggéey bi yàlla na ma paab mbir ngi nii def fi sa ba noppi ko ànd koog man ku bëgg a dimbali nit ñi fi nga leen di jaarale. waaye daar jumaa joojee laata ma ko fay def daaray alxuraan la fa njëkk andi am na ci mag ñoo xam ne ku leen yeewoon tey na leen seen set ba bind na kaamil ñoo la loolu du dëgg munta ne ca yaman te am ngeen ko fa am fa ñu mën a jiite jumaa ji waaye yemu ci. lépp loo xam ne luy tax ab dëkk développé Cheikh bu ko amee andi na ko yaman courant baak tëli baak dispensaire baak jumaa jaak ndox maak lu ci mën a doon ba ca marché ba. reen ji yaakaar naa ne bi ñu ñëwee ci siyaare bi wax nañ ko lu ëpp juróom fukki gone yoo xamante ne bii ñenn ñi am nañ ay bac ñenn ñi am ay licence lam leen waxal boppam damaa bëgg diir bu gàtt président de la république mën a gaa yi bàyyi ko fi yaman te jombut kon yéen bu ngeen àndandoo ñëw ci moom xolam sedd na xelam dal na Cheikh nag amul kenn ku may àndal ci àdduna koo xam ne séentu na ci yow ñaari dërëm ñaari dërëm te it maa ngi leen di seereel ne daayira bu mu mën a doon mooy boo xam daayira laylatul xadar la daayira bii bu ci mën a doon dërëm bi ngeen koy jox bokkut ak li muy defi dépense de aka xam fi muy dugal li ngeen koy jox loolu moom ñun ñu ko jege te xam ko xam nañ bu baax li ngeen koy jox ñàkku taalibe yi moom fi koy def du lu muy mottali ko du lu muy jënd mbubb taraanga yàlla da ko judduwaaleel kon nee na mi ngi leen di sant di jotal ak cant akum nuyoo ci seen ziyaare bii ni ko sëñ Lamine doon sëriñ doon waxe léegi nii sëñ Modou Mbacke Sy ngi nii toog di sëtu sëriñ Malick Bassine si yaakaar naa ne ñi ma dégg léegi bi may agsi ñuy jàng jàngi tiijaan war nañ koo mën a jàng ndax sëñ malik Bassine si Matar Penda ko jur tafsir Demba Bunda jur ko tafsir Demba na moo jur Ousmane mu jur El Hadj kon yaakaar naa war ngeen ko fee mën a jàng soxna Leeka mii ngay tudd léegi nii maa ngi seen daayira saxaadatu daaray nii soxna Seyna bu Njaay ak soxna Adja Leena ñi ngi ñi ngi ñooñu dañuy dañuy dañuy soxna may maanaam nit dana takku ci dara takku ci dara ba mujj loola di moom day dem ba loola di moom muy moom soxna lii tey la tuwaaletu waaye laylatul xadar jim xam na yëfama laxasaay gi ci ndigg li nga koy seen muy baagante waañ wa ak taabal kenn doyu ko ci waaye nag dañeen ko séq ku ko mat mooy soxna Maymuna mu sañ Touba waaye seq ko ak ko ko mat muy soxna Bali. soxna Bali da doon jigéen joo xam ne sun borom da koo jox cërub góor benn rek laa ciy nettali te booba Adja leen ñoom ñii ñu ngi toog te loolu bari na góor ñoo xam ne bu leen gaaroon ñu salit dañ ne suba la laylatul xadar suba daayira a ashaabul jannati bu jumaa ji di siyaare si ëpp nañ mille personnes ak daayira yim fi fekk ñu war a siyaare si am kilifa gu fi andi aw nag soxna Bali war a jox xooli ko ma jiit leeg moom mu taxaw ci buntu mbaar mii fim taxaw di miir mu déy ma na ma téye ma damay waaj a daanu waaye ci jom ja ci jom ji loxoom bi ma teg bëggut kenn santiir ne. soxna Bali mii am na lu koy métti oh. ndakate baaraamu dëy bila sam ba baaraam bi damm hmm? wallahi barke borom tubaa hmm, mbooleem ñi ne ci jataay bi santiruñ ne soxna Bali mi am na lu koy métti oh. bi mu neppee mu ne ma mënumaa dox ma teg ko sama loxo bañ ànd dugg ci ne bi ma dem seeti ku ñu wax ma si la ñang ma jëli ko andi mu xool baaraam bi ne ma neexut ba neexut waaye baaraam bi daa damm teel teel ma wax ko sëñ Cheikh Abdoul Ahad mii mu ñëw soxna Bali na ko lu mën a xew nañ nekk ba laylatul xadar jàll waaye laylatul xadar yi du ma wan ginnaaw mukk mbooloo mi ma damaa gaañu. ma jël ko andi bisub laylatul xadar soxna Bali xëy toog ak miti itam woowee daayira buy siyaare santirut ne soxna Bali am na lu koy miti. koor gépp mënut a ndax baaraam baa ngi niwi tànk bi niwi ma fa ab ab teg ci. noonu la yendoog laylatul xadar ji ba jant bi so ba nit ñuy doog tëlta doog Cheikh Abdou jël ko yóbbu yóbbu Ndakaaru fajar gi mboolem ku xëy rek da ngaa dégg ñu ne soxna Bally dem na Ndakaaru xam nga bi mu ba ñibbisi lu ma wax mu ngoog bi mu tanee ba ñibbisi ma di ko gàttandu ji ne ko soxna si mitiit wu mitee nii ak li nga sentir ren ji mu ne ma galas gis nga bi sama baaraam bi dam maa ngi xalaat bi ñuy tàbbal sëñ Tuubaa ci kàmb boobu yëg-yëg góoru caaxaan du ko am sàkkantumaak jigéen ju mat kooku kon kii dañ koo bàyyee lu mat a bàyyee mu ànd ko kenn képp muy soxna su seen nijaay nekk ca asalem di sëñ Modou Mahfous liggéey bu rëyee nii mbooloo moo ko war a séq liggéey bu rëyee nii mbooloo mu baree ko war a séq te du tee liggéey ba di am fu mu yem wala am lu ca yàqu waaye ñoom ñetti nit képp ko seq soxna Astou sëñ Cheikh Abdou sëñ Modou Mahfous bay ma ko bay Cheikh ngi nii toog kër gi moom ñoom adduna bépp xam nañ ne benn baat genn kilifteef lañ am muy sëñ Modou Mahfous lu yendu fii fanaan da asalem lu yendu asalem fanaan si fii sëñ Modou bañ na ko ba wax ne doonuma ci dara lépp seex Abdou laat kon bis bii ku yàlla dogal nga teg fi sa tànk Cheikh Abdou Lahad nee na mënut laa fay ndax bis kat ñi doon jëm si Touba aw aw xel lañ daan àndaale Touba 1974 dañoo jóge Njaareem kër sëñ Mor Mbay Cissé daat ne màggalu Daaru Xuddoos dañ koy préparé ngir dox dem Touba gis naa taala si la di ko roy ñu wax ko sëñ Mor mu ne lu ngeen jublu ci dox gi ñu ne ko dañoo yëg bi ñëpp déggee na sëñ Touba ñëw na Touba kenn ku nekk da ngaa dox fa nga nekkoon xaaroo oto ñu bëgg a barkeelu ci dox boobu sëñ moor na ma bu ngeen demee dee leen jàng baytu xasida bii lii kun bi kun sarmadan wajhal masir yasa jaw fal fara lil wara misal maharini bayit boobu keroog laa ko njëkk a dégg jaw fal fara mooy loo xam ne daa dajale lépp maanaam wenn rab woo xam ne mbooleem cafkay rab yi ne ci àll bi ma nga ca ca rab woowee nga jam rab woowee loola mooy jawfal fara sëñ Tuubaa mbooleem lu baax aku yiw lu nitug yàlla mas a takk wala ab garaat wala waliyu wala xutbu wala ab yonent lum mën a doon yàlla nee na dama ko boole ci génn mbuus fam mbuus ga wekk sëñ Tuubaa ku dikkati ne ko damaa bëgg lu baax mën a toppil borom mbuus ga moo tax sëñ Bay Jaxate ne ko foo mas a dégg aw yiw ak lu baax jóg na fa tey ay xotta des fépp mbakk yow yaa di nga ñaay kon kër gi lu fi waay def Cheikh Abdou Lahad nee na sëñ Touba nga ko defal te soxna May mi ngi lay gis soxna Bale ngi lay gis Serigne Touba ngi lay gis yaakaar naa ne nag ab liggéey ku koy liggéey sëñ Mourou Moustapha man la caa fay maam Thierno man la caa fay soxna May mu na man la caa fay boo ca bëggee payu sëñ Touba danga ko ca am ndax ñett ñooñu kuñ fay sëñ Touba fay la kon mbooloo mépp la sëñ bi sant waaye Adja lii ka li ngay def. bul ci gestu Adja leena li ngeen di def bu leen ci gestu ndax nit bu duggee ci kër di ñu koy wax gone gu jigéen di ab élève di dem ba am fa ay sët te wóor na ko ne mos sa dellu ginnaaw kër googu jig na ko te mbooleem ñiy ñëw ci kër gi daan fi fekk soxna May ak bisub tey groupe buñ mën a doon dañ leen di dàq waaye ñoom dàquñu kenn dañ leen di ñee waaye ñëwuñu kenn. kër gi kenn du fi dugg di ñeetaane kërug sutura la kërug sutura la laylatul xadar dafa jege astafurla màggalu Tuuba sëñ Modou Rokhaya jox ma fi am xar mu mag ku ne wax asigo goom jox ko ko mu ne ma xar mii day ginnaaw yàlla dogal na toll na nii dama yëtal ma ko soxna may muy samam tabaski daal di génne fukki ni jox ma ma ñëw fekk waa daayira is bu tarxiya toggal ko ay añ war ko koo andil sëñ daam Fati. gis na sonn naa ci nuyoo bi te soxna si daa mel ne mi nga waxaa léegi daay bi mu mu sëgg na ko soxna may galasum baay seex mu ne ko daam faati baal galas ak bokk andiwu ko fi sëñ Tuubaa fi andi billaahi ma toog mu ne ma dama lay yóbbante ci sëñ Modou bi étudiants yi andee añ bi mu jox ma ab booli na ma boo demee neel sëñ Modou ku mu bëgg aajoom faju na ko jox ci ceeb bi yëkkati am mbàjj jox ma ne ko mbàjj ma bu mu tàggoog moom ma ñëw jox sëñ Modou boolib ceeb boobu mu ne ma demal weeral ma ko bu ko séddalee teggal ndawal gi dem weer ko ci ay seng yu bees peq ma dem jënd ñeenti seng weer ci booli bi ba màggal ba jàll ba mu am juróomi fan ceeb ba wow mu ne ma def def ko ci ay mbuus mbooleem seex bu màggal si woon mu yónnee la ci na ko nee ko sa pajog ajoo ngi noonu da koo weer na ma du forox boo ko weeree bu diw gi daña rek waaye sëñ Modou Mbacke si sëñ Modou mën a naa continuer tuuti te moom ay waxam duma ci mën a teg dara ndax yàlla dogal na Cheikh Abdou Lahad mii moo ñu boole ci karawaanu Grand Magal de Touba bañ sëriñ Cheikh Abdou Lahad sama sëriñ li muy doon doon sama mbokk ma dëkk ci kër gi. ëppale ko ci fuuf waaye teewut sama sëriñ moo ma ne wutuma ci Seex Abdu waaw wutuma ci Seex kon damay jàpp ne moo fi toogee moom laa fi toogal moo tax kera ba ma nee sëñ Modou Mbacke si mi booleel xàmmeetuma ko sëñ Seex Anta mi may àndal ndax yoon wi yoonu ngërëm la Cheikh Ibra dafa wax ne sëñ Baara Jenn la ko wax ne ko Mamadou Lamine kaay ma jàng dooma laaj li ma laajoon sëñ bamba sëñ baara ko aha kay mu ko laaj naa sëñ bamba juróomi laaj mu ne ko bu ca jëkk mu ne ko kere ba ma jaayanteeg moom dama ko ne ak muritu ñaata at la ndax dama bëgg a xam fi ma jëm fi may tàmbalee ak fi may yem nit du dugg ci lu mu xamul mu ne fanweeri at la mu ne ko ah sëñ bamba yàgg na wàññil ma ko mu ne ma fukk juróom nee na ñemeetuma ca baat waaye booba ne samam xar li nee na yar ci diggante Moussa diggante yonent bi ak sun borom ak Moussa ndax julli yi matoon na juróom fukk waaye da koy baaganteloo waaye man benn yoon rek laa wàññi lu ñemeetuma wàññi lu waaye nag booba fukki at ak juróom yi ma ko defal fanweeri at yam njëkk wax man ñetti at laa tërbiyewu am ngërëmul yàlla fukki at yu ne ma def ko menaat mu ne ko bu ca topp mu ne ko nee naa ko won kuy toog ak sëb sëriñ nooy def mu ne ko da ngay mel ne kuy julli yaa ko wax léegi. Cheikh Ibra ko wax nee na maa ko laaj sëñ Bamba ne ko booy toog ak sëb sëriñ nooy def mu ne ko dangay mel na kuy julli mu ne ko booy wax ak moom nag mu ne ko lu wax ja bari bari bu la ca joxut genn kàddu bul ca dugg. jëjëwaay. loolu alxuraan ko njëkk wax i waxati laa tarfahu aswaatukum fawqa sawti nabi bu leen ti seen kàddu ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du sëñ Murtala mu ne ko booy booy booy siyaare ji sëb sëriñ nag mu ne ko melal na daay gu jaay sa màngug noor. bu fa ba dara loolu sëñ Balla fan yi nga ko njëkk a def sëñ Balla sëñ Tuubaa daa yónnee ci moom ñetti ndaw yu tegaloo mu mu miraas kër ga jël seng ya jël néeg ya jël fas ya jël jigéen ña jël lépp na yët leen sëñ Bamba kër ga bàyyiwu fa dara lu weesu garab garab ga fa nekkoon di ak gi gis. ñun ñi daw ñëw ci sëñ Touba ne ko Balla miraas na boppam mu ne ah waaw man de ndaa bala ma caa def dama koo ŋacc sëñ Touba du bokk ak kenn am ndox ndaa lu mu dem fekk ca as ndox mu bokk ca day ŋacc ba mu set wicc mu duy ci ndoxum boppam. ndoxum sëñ Touba nag boo ko xasee duy boo ci naanee benn guux dootoo mar ba adduna ak at laaxira doo tukki bokkut ak ndox yii ngay naan di mar sëñ Touba ndoxam daa neex te sedd te bu la mandalee benn yoon dootoo mar ba ba addunay tukki Cheikh Abdou. ak taalibe moo koy booleeg doomu aadama Cheikh Bassirou Abdou Khadir moo ma ko nettali nee na ma bari na lu jag ci màggalu Tuubaa ku nekk di wax fekk na Cheikh doo ko def ba noppi roccee ko waa dem toog ginnaaw gis nga yëngatu yu àdduna yi keroog ba ciy dugg ñu toog waxtaan daf ma ne Touba laa bëgg ñu xam seen bopp gone yi fi nekk damaa bëgg ñu xam ne war nañoo mën a doon ay ministre war ma mën a doon président damaa bañ ñu toog fii rek ku ñëw ñu di ko tàccu waaye su ma leen wane yoon ma génn ci man li ma sëñ Touba defal benn président mënuma ma koo fay genn nguur mënuma ko fay waaye gone yi na ci dëkk bi nag dañoo war a jariñu ndax àdduna lañ nekk demaguñ àllaaxira te àdduna moom picc sax balaa jar balaa balaa balaa nen daa tàgg jinax ji li muy tuut tuut day gas soog a dëkk doomu aadama bu fi nekk daa war a yëngatu te sëñ Touba daa yàlla daa able ñaar daa bind ñett able ñaar daa bind nit bind malaayika binn bàyyi ma wut xel ak bànneex fab xel jox malaayika waaye joxu ko bànneex bu ko joxoon bànneex moom mooy yàlla mu fab bànneex jox bàyyi ma waaye amutum xel fab xel ak bànneex nag jox doomu aadama kon doomu aadama sunu borom jox na ko cër bu rëy fu mu moo fa yemale boppam. tubaab bii liggéey ab yoon doomu aadama képp la am xelam la jëfandikoo ci liggéey pour bii ab doomu aadama képp la kon doomu aadama amu ci ku yàlla wala xadd karam naa ba ne doomu aadama yëpp la teral boo liggéeyee sam xel ak jariñ jariñ mbooloo sëñ bii nag am xelam lay liggéeyal ngir jariñ mbooloo moo tax bis bii sëñ Madiba la naan na ab laabiire la ci képp koo xam ne mën nga ko ku ñëw màggaluk Daaru Xuddoos muy màggaluk Touba sëñ Mourou Moustapha 59 ans la dund amut juróom benn fukk juróom fukk ak juróom ñeent la dund soo mënee xasida ak allahu min kulli karimin akramu jàng ko juróom fukki yoon ak juróom-ñeent at mu ne jàngal ko ko sëñ Mourou Moussa nee na lu ñuy séddale ci Touba yow da nga koy yóbbaale mën ngaa dem ñibbi. sëñ Madiba si la ko waxoon juróom fukki allahu min kulli karimin akramu ak juróom-ñeent ñetti bayit la ci la sëñ Touba tënk alquran nee na boo ko jàngalee sëñ Mourou Moussa man ngaa dem ñibbi boo demoon ba sa kërit la ñuy séddale Touba daañu la ko yët. dana maye gudd fan kon. Sëriñ Tuubaa ma ko wax ci gémmiñam te booba du ma nitu kese. xasida googu. day maye gudd fan. dama dajeeg seen max ak Tijaan muy ku tedd. man ko man dama bëgg gudd fan ndax dama bëgg liggéeyal sëñ Tuubaa mu jox ma ñaanu gudd fan ci téeméeri xeer yoo xam ni danga koy xaaj. génne la nga dund ba noppi la nga bëgg a dund la ca des nga wéetu ko suuratul Ixlaas gas ba mu xóot nga dénk ko mbootum lexlaas ak xeer yi ak sa dund ma def ko tëdd ba guddi sëñ Tuubaa ak ma ni ma tegu ci suuf ma joxulu lu ko gën a gaaw gën ko ni ma nangam mi allahu min kulli karimin akramu boo ko defee ci benn jataay waxoo kenn teewlu xat moo ko sóoratu tawba koo ko defal mu dund téeméeraat ku ko def dund téeméeraat sëñ Tuubaa ma ko wax. jërëjëf xam naa ndaa mel ne waxtu wi jot na te it euh, ñi ngi waaj a ñi ngi waaj a séddale añ kon sëñ Modou mi ngi noonu. li tax li tax bi ma waxee ma ma ma baamuwaat kàddu yi sëñ sëñ Malick Bassine mi ko jur ak sëñ Mor Khary ñoo bokk ndey baay. Matar Penda leen jur sëñ Mor daa daa jóge si siin bu na fa baayam ne bisub Tabaski na ko damaa bëgg a seeti Serigne Touba ca ma nga gànnaar su ma demee ma jox ko saa bopp. mu ne ko nangul naa la boo demee ne ko gàntuwuma ko ay at rek ma téye waaye na jaar ci sa bokk ma yóbbaale ko muy Malick booba sëñ Malick a ngi fii Mbacke Thiawén bori boofel ci xur wi bi muy ñëw ci moom daa daas jaaseem ju ñaw solaale ko ci mbubam ne su ma demee ne Malick Bassine kaa ñu dem ci sëñ Touba mu teg ci benn baat ma dagg bopp bi yët sëñ Touba. bim daataaka ñëw fekk sëñ Malick woo soxnaam mu ñëw mu ne ko defaral ma baraay ak sànqal damay dem gànnaar fekki sëñ Touba. montre yu baax yëpp bokk bi sëñ Mor ak see gisee sëñ Malick fanaan ba noppi na ko ma wax la sama yoon mu ne ko lumu mu ne ko damaa bëgg dem seeti sëñ Touba jox ko sama bopp. mu woo soxnaam mu ñëw mu ne ko lu ma la doon defarloo mun ne ko sànqal mu ne ko ak lan mun ne ko ak baraay mu ne ko lu ma ci jublu woon mu ne ko danga ma ne damay dem gànnaar fekk sëñ Bamba sëñ Mor génn jaasi ko damaa naroon su ma la ko waxee nga teg ci baat ma dagg sa bopp itaali sëñ Touba ngeen jëf. damay dem Gabon ànd ak Ivoirien mu ne ma yéen yéenay comité d'organisation bu Magalu Touba mu ne waaw mu ne ma yéenay dem Gabon ma ne ko waaw mu ne ma kaay ma wax la ma ne ko loo may wax. mu ne ma seen sëriñ laa la bëgg a xàmmeel ak sëriñ si ma ne ah, man damay bëgg a jommi ab ivoirien bëgg maa xamal sëñ Touba. mu ne ma waaw xam nga sëñ Touba lu ko taxa jaar Côte d'Ivoire ma ne ko déedéet mu ne ma basam la ñëwoon. ma ne ko lu mu doon wut basam mu ne booba buurub basam daa bokk ci révolutionnaire yi ci tubaab bi boobu bëgguñu révolutionnaire ñu ñëw basam di ko wër mu daw dugg ci àll bi. moo tax fan yen fa def ñu def ko fa di ko wër ci àll bi biñ ko jàppee rek lañ dem boole koog sëñ Bamba. ne ma waaye nag yóbbuwuñ leen ñoom ñaar de yóbbu woon nañ daanaka lu jege trois cent personnes yoo xam ne ñii ay buur lañ ñii ay révolutionnaire lañ ñii ay seriñ lañ mu ne waaye trois cent personnes yoo ñu yóbbu yoon ñëpp ma dégg ngeen naan ay quatre-vingt-quatre déedéet ëpp nañ trois cent personnes waaye ñëpp ku ci dul sëñ Bamba lakk nañ la def la ci butéel sëñ Tuubaa doo nga ñibbi seeku guro <laughs> waaye ñi ci des ñëpp dañ leen lakk def leen ci butéel bi ni ci seen tur kon kooku du morom. déedéet meññ doo morom. Mm-hmm. Cheikh Abdoul Ahad mii nag loolee rek la xam fab tànkam teg ko fa lu ne àdduna mën na koo wax waaye moom wóor na man ne yàlla du ko jëppi ndax du mooy yàlla sëñ Touba it du ko jëppi ndax du ko boolee kenn pas-pasam ci sëñ Touba nag def ne du ma doon lu may wane ndax man mii maa ko xam maag sëñ Touba ñoo ko seq keneen waru ci àddoon dara nee na man nday ji ma jur sax sama pas-pas ci sëñ Touba doonu ca dara man sama digganteeg sëñ Touba maak moom képp su ma demee ba xam ne li may liggéeyal sëñ nit ñaa ngi ko war a tàmbalee gis ma nëbb ko ndax fi ma sëñ Touba féete man xam naa ko fi ma ko war a féete dama ko war a xam te man maa ko war a féete fen ndax moo ma féete fépp kon ñi ngi sant ñëpp di ñaan képp ku teg sa tànk ci kër gi tey jii yàlla boo génnee la bàkkaar képp ku teg sa tànk ci kër gii lépp loo xam ne sëñ Modou Moussa waxoon na ne ku fanaan ci dëkk bii bu boo xëyee da nga seet wecc ci bàkkaar waaye da nga taxoog ay xiwal yàlla ko yàlla defal képp ku teg sa tànk ci kër gi maa ngi jégalu bu baax sëriñ bi lim war a mat mat lépp mat na ko bokkam yii ñëw di ko wettali di ay gor amu ci kenn koo xamante ni bii du doomi gor du doomi murid sadiq du doomi borom ngërëm waaye xam nañ ne liñ boole woon ak sëñ Touba du ab juddu ju pas-pas rek ñu boole woon ak sëñ Touba sëñ Touba nag moom soo ko nee jàpp naa la du la gaaw a jàpp de ak kam mën a sandamtalu nit da seetaan ba noppi boole koog di jéem a dindi loxoom waaye boo gënee dëgëral muy xëcc ngay jàpp muy xëcc ngay jàpp ba mu wóor ko ne moom mi jàpp nga nee na bu ma nee nikk ba téye soo ma bàyyee it man du ma la bàyyi mm-hmm. bala maa tàggoog yow rek tabal la àjjana ilayka ya xayral bariyati salaam xadimika allazi kafaytahu almalaa